l'usine d'armement moi moi je pense que c'est pas une question de souveraineté militaire moi je sécuritaire et autres moi je pense que les grandes puissances dañuy am dans leur pays des des usines d'armement euh, militaires donc si aujourd'hui li nga xam ne dañ ko waroon jëndee bitim réew ñun ñu koy defaree suñu suñu suñu suñu biir réew je n'y vois pas d'inconvénient Adama est-ce que suñu priorité ay armement la. non non non c'est-à-dire cest à dans une zone boo xamante ni suñu priorité certes du armement mais nous sommes nous sommes entourés d'une ceinture de feu il la question sécuritaire qui est en jeu présentement dans la sous-région loolu moom il faut ñu nangu ko nous sommes pas à l'abri yeneen dëkk yi ya fa xew ñun nous sommes pas à l'abri ñun Sénégal c'est-à-dire ñun dañoo tàmm di wax naan euh, Sénégal yenn yi du fi mës a xew man gëwuma loolu je crois pas. donc nous sommes pas à l'abri xoddiku nag balaa ngay lakkale loolu la olof wax nan installer une usine d'armement par la Chine ça peut être quelque chose boo xamante ni qui peut permettre au au Sénégal de pouvoir euh, construire ses propres fabriquer ses propres armes pour pouvoir assurer sa sécurité des personnes et des biens parce que loolu aussi ça incombe à l'État yi ñu daan def ci alal di ko dem jëndee armement pour nos nos forces des armées su nekkee fii lañ koy defaree ça serait une loolu laa jàpp donc loolu dina assurer la question sécuritaire